yéene kaay yu ca bari tey xëy yeewi ak wàllu nañu dàqee ca wet ga HCCT ndax ñàkk gis ñu ne njariñ la observateur ne yeewi wàllu ànd falax ca wet ga la ñuy def googee kuréel ne duñu bokk ci élection yi jëm ci tànni membre am le mandat ne Bougane Gueye Dany ak waa gëm sa bopp ñëw nañu fekk si leen ci wan ginnaaw gi ñeel HCCT ak wote yi jëm ci fànn woowee ci la tribune gëm sa bopp ne kuréel la gunu fi war a jëlee sax ndax benn amul njariñ ba ca topp koppar yu bari lay jural askan wi le témoin gis ne démb waa wàllu ak yeewi danoo jël ñaari dogal yu politique lool benn bi ci soofantal gi soofantal conseil constitutionnel ne duñu fa yóbbu benn kalaame ndax yàq sa kalaame la ba ca topp mooy wan ginnaaw gi ñeel HCCT ak faluk ay membre am yéene kaay bi ne Khalifa Sall Ousmane Sonko ak ñi nu àndal wane nañu ci lu leer dogoo gi nu bëgg a dogoog la fi woon ba fii ci wàllu doxalin ci yéene kaay bi di l'info Déthié Fall ne mënee la dund ak waame di inondation gis askan wi méttit dund ngay dem di bokk ci élection jëm ci kuréel goo xamante ni genn ak njariñ la amul Cheikh Tidiane Dièye ba tey ci l'info di ko feelu ca naan amul a wax njariñal ne bari mënoon na jariñ askan wi feneen Mamadou Lamine Thiam bu wàllu moom ne am na ñenn ci seeni rang ñu nu bëgg a rocci di leen garaka dik ay poste ci conseiller ca boobu HCCT Cheikh Tidiane Youm gis moom ne opposition bi ci boppam fan yi moo delloo ci na mu gën a ci seen wàllu dayoo ñoom waa nguur gi nga xam ne donte doon nañ dugali njuuj njaaj ci wote yi amunu majorité Pape Diop moom ana ca fare loolu mooy laaj bi observateur mun Mountakha Bassir Mbacké ba mu ñaanal ko moom ancien président bu Sénat noonu it la enquête gisee ndax yéenekaay bi nee na Pape Diop vers le Macky ñu des ak enquête mi jàpp ne coow li coow li yëpp nag PDS ci boobu moo dekkiwaat ñu waat ci digg géew politique bi ci gàttal ñoom wàddeen ak ñaar fukk ak ñeenti député ñeenti téeméer ak juróom fukki junni ci xob ak ñetti gox yu ñu teg tànk PDS suqalikuwaat na ca maître Abdoulaye Wade ñu ne mun na waxtaane yoon moom Abdoulaye Wade ci boppam Mankeur Ndiaye ndax dafay waaj a dem ci opposition bépp déet loolu mooy laaj bi direct info def ndax addu gi mu addu fan yi ci lu bari ci wàllu tolluwaay réew mi rawatina politique gi woo na fi fan yi ci ginnaaw président Macky Sall ngir mu dajale acteur politique yeeg société civile bi ngir waxtaan jëm ci luy moytu crise institutionnelle ci Sénégal wane woon na fi it fan yi ci ginnaaw ak meram moom Mankeur Ndiaye bi ñu éliminé liste Yewwi jàppale woon fi a dem ci opposition ku naan naan du yomb ci état bi de contrôle googee ndax donte ak jàppe am na ba tey xëti yéenekaay yi ñu ngi koy détourné ko sopparñi ci internet bi ca matuwaay ci wàllu yoon it doyul Seydi Gassama ci source a moom la mu gis ci la toppee ku mel ni Ousmane Diagne bu mafia kàcc kàcc ne day wasaare xibaar yu wérul mu ne loolu procureur ko fabriqué kese ngir gàntal yëngu yu activiste yi askan wi ak i jafe-jafeem ci wàllu dundin ak nekkin rawatina inondation ñaareelu phase programme décennal bu xeex inondation yi 2012 ci kaw plan Orsec ñu jëfandikoo moyens yépp ngir manqal askan wi ndox wi féexal leen askan woowee soley xëy tey ne musiba bàbb kuba ndeke moo leen tiim ak taax yu daanu naka noonu taax yoo xamante ni yu wóor la lu toll ci junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukki ak juróom-ñaar ci Ndakaaru diggante novembre ak août lu toll ci fukki bakkan yu ci rot laas moom ñëw yokk ci tiitaange Chine tëral na fa fanweer ak juróomi doomu aadama Langia la tudd boobee virus ca ci mala jëm ci doomu aadama lay wàllante jàngoro ji ñu ne melokaani Covid 19 la yor.